بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi jàng tey xazwatu xandaq wala xazwatul ahzaab xare bi ñuy war a jàng tey dinañ ci xam bu baax a baax rolu yahud yi yahud yi nga xam ne ñoom ñooy banu nadir yahud yi nga xam ne ñoom ñooy banu nadir ci dajaloo gi nga xam ne dajaloo woon nañ ko ci ahzab wala ci xandak dinañ ci jàngaat rolu yahud yi nga xam ne ñoom ñooy banu qaynuqa ñoom ñëpp àndoon nañ di xeex yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye danañ ci jàngaat naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajalee information yooyu yëpp ba mën a mucc ci mbooloo yooyu nga xam ne ñoo dajaloo woon coalisé pour màbb l'islam pour fay ko pour far ko ci kaw suuf dinañu jàngaat ci xare bi njëriñu suura te mooy diisoo dinañu jàngaat ci xare boobu saxaaba bu màgg boobu tudd salmaanul farisi taxawaay bu rëy bu mu taxaw keroog ca ahzab wala ci xandak dinañu jàng aussi ci dars bi taxawaayu jullit yi ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam baleen yonent bi waxee def leen ban taxawaay lañ ci taxaw waaye mbokk yi dinañ jàng Nu'man ibnu Mas'ud taxawaay bu rëy moom tamit bi mu taxaw keroog ci ahzab waaye buñ ñëwee ci tàmbali dars bi danañ fekk danañ jàng-jàng bu rëy rëy rëy rëy ci li am tey ci jamono ndeke tàmbaliwul tey lu yàgg la ci yéeféer yi di dajaloo rek di napp jullit yi nee na sang yi nga xam ne ñoom ñooy banu nadir muy ay yahud dañoo saxal ginnaaw ba leen yenent bi alayhi salaatu wasalaam génnee dàq leen ci dëkk jullit yi li ñu gis ci ñoom mooy loolu gàcce la dootuñu nelaw dootuñu lekk dootuñu naan lu dul dañoo ñëw Médine rey yonent bi faagaagal lislaam léegi nag pexe yooyu biñ ko bëggee tëral lan lañ def ñoom yahud yi mooy dañoo dem mag fekk fa sangu Quraysh suñu yéeféer yu mag yooyu wa qaabalu ru'asaa'u Quraysh ñu daje kàngami Quraysh yi yéeféer yu mag yooyu ñu daal leen di soññu ci waxtaan ak ñoom d'accord ak ñoom ne dañoo war a xeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooñu daal di nangu ñu soññi ñooñu ñooñu nangu après lu xew comme am nañ léegi benn kër benn mbooloo benn dëkk lan la ñuy defaat dañoo ñëw ci famille boo xam ne mooy Ghatfan léegi am nañ Makka ñëw ci yahuutu Ghatfan ñu xiirtal leen ñoom it leneen dañoo bëgg a rey yonent bi jeexal diine ji ci kaw suuf waxtaan nañ ci ak waa Quraysh waa Quraysh nangu nañ yéen yéen a ci des ñooñu tamit daal di nangu mu nekk ñetti groupe Nadir Makka ak Ghatfan waa Quraysh daal di préparé ak seeni àndandoo kuréel googu ka ko jiite woon mooy Abu Sufyan moom moo yore woon drapeau ba ki yore woon drapeau ba mooy Ousmane ibnu Talha ñooñu seen lim ñaata la woon wa adaduhum arbaatu alaaf nekkoon na ñeenti junni maahum salaasu miatu faras nekkoon na ñeenti junni nit ak ñetti téeméer ñu war fas wa alf wa xamsu mia bair yora nañ junni ak juróomi téeméeri mbaam waaw gëléem kon ñooñu kon xam ngeen ne seen armée bari na woon imagine leen waa Quraysh rek ki leen jiite woon mooy Abu Sufyan ki yoroon seen drapeau di Ousmane ibnu Talha seen lim nekk ñeenti junni am ci juróom-ñetti téeméer ñoo xam ne dañoo war fas am ci junni ak juróomi téeméer boo xam ne ay gëléem lañu war ñooñu waaye ñooy waa Quraysh beneen mbooloo ba mooy waa Ghatfan keneen jiite woon mooy Ubaynat ibnu Husayn moom mi nga xam ne kàngam la woon bu ñu xam moom mi nga xam ne ku noonu woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ñooñu moom wa kaana maahum alfu faras ñooñu yoroon nañ ñoom it junni fas ñoo xam ne dañoo war fas ci seeni armée boo bàyyee ñooñu wàccal nga dem ci banu murra beneen groupe la ki leen jiite woon mooy xaaris ibnu awf ñooñu wa maahum arba mia amoon nañ ñoom tamit ñeenti téeméer ñu daal di tàggat beneen famille bu tudd banu asja ñooñu ki leen jiite woon mooy muashir ibnu raxil ñu soññaat beneen mboolo bu tudd bani sulaym ki leen jiite woon mooy sufiyaan ibnu abdu sams ñooñu sabu mia ñoomi tamit juróomi téeméer lañ woon ñu soññ mbooloo mu tudd asad banu asad ñooñu ki leen jiite woon mooy talayxatu ibnu xuwaylid al asadi ñooñu seen lim ashara alaaf lañ woon fukki junni kon boo xoolee lii yëpp mbooloo yi yëpp ñoom ñoo àndoon di xeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax ñu tuddee ko al ahzab mooy les coalisés am na sax saar ci alquran bu yàlla wàcce ba ñu tuddee ko saar bi ndax mbooloo yëpp ñoo àndoon ne dañuy xeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon loo ciy jàng mooy loolu mooy li amaat rek mooy répété wu waat tey ci jamono jamono bu nekk di nga gis mbooloo yi di ànd di noggatu jullit yi di di leen dóor di leen duma di nga jàng bu ñu buggee duma Irak noon ni dañoo booloo bi ñu bëggee duma Xadafi noon yi dañoo booloo bi ñu bëggee duma waa Afghanistan noon yi dañoo booloo bi ñu bëggee duma waa Somali noon yi dañoo booloo bi ñu bëggee duma waa Soudan noon yi bu ñoo dañoo booloo ba tey moo ci mujj ci Mali ba ñu bëgg a duma ñi fa nekk dañu ne ay jihadistes ñoo fa dugg nit ñi daal di indi seeni armée dëkk bu nekk yónnee pour ñu duma ñooñu mooy jamono ju nekk waxtu bu nekk ñi doon xeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam maam yaa dem waaye sët yaa ngi fi sët yaa ngi dundal la seeni maam doon def mooy xeex lislaam ba léegi keroog xare boobu walamma baga balaga alayhi salatu wasalaam axbara haadihi tahjizat keroog ba yonent bi alayhi salatu wasalaam yégee mbooloo yi dajaloo di préparé di xeex seeg moom moom yàccaaralul mel ne tey jullit ñi ni ñuy yàccaarale moom yaafuusul moom nooyul li mu njëkk a def mooy istasaara ashaabahu dafa dajale sahaaba yi diisoo ak ñoom waxtaan ak ñoom xamal leen xabaar bi ne leen noon yi dajaloo nañ kat pour faagaagal lislaam ci kaw suuf lan ngeen ci xam ndax dañuy toog Medina ñu ñoo rey ñu wala damay génn dajajeeg ñoom ca biti Medina xeex ak ñoom wala damay toog ñu fekk si ma ba yonent bi waxee loolu am na ci kenn ci biir mbooloo jullit yi ku tudd salmaanul farisi salmaan moo jóg daa di indi xalaatam ne ko bu doon ñun la ca Perse am mbooloo bu ñu ëpp doole bu bari boo xam ne mënuñu leen a dékku amuñu ay arme pour baare leen amuñu nit ndax ñooñu ëpp bu doon ñun la dee dañuy gas benn kondiir bu tudd alxandak mbir la moo xam ne arab yi xamuñu ko woon yonent bi sàkku ci salmaan na leen leeralal lool nuñ koy defee salman daal leen koy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe ndigal gaa yi daal di tekki kaala yi ci bopp yi daal di koy takk ci ndigg yi ñu gàddu pikk yeeg peel yi daal di gas kondir boobu nga xamante ne toll na ci ay cinquantaine de kilomètres benn boor bi ci Médine fi ñu yaakaar foofu la gaa yi war a jaar ñu gas fa kondiir bi xóotaay bi dem na ay 30 mètres yaatuwaay bi dem na ay 40 mètres pour nit du ko mën a traverser mbokk yi looloo ngi amoon ci weer wu tudd Sawaal ci jamono joo xamante ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi ñëw Medine yàggagu fa sax gaa yi daal di indi seeni pexe pour faagaagal lislaam ci juróomeelu at bi ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam sahaaba yi takku ci ginnaaw yonent bi xamal ko ne déegi moom benn la rek bu ñëwee ñun ñëpp ñooy dee waaye yow doo dee rek ñun ñu daal di toog di xoole ndax ñun fàttewuñu ñoo ñoo la jële woon màkk ñoo waxoon wax jane li ñuy bañal sunu bopp lan lay bañal sunu gàcce mooy sa gàcce sa dund mooy sunu dund sa dee mooy sunu dee keroog la saxaaba yi takku ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñuy gas guddeeg bëccëg ba ñu am li ñu bëgg gas nañ pax bi ci simaalal madina ci bëj gànnaaru medinatul munawwar ci côté penku ba ndax beneen wàll bi ay montagne ñoo fa nekk beneen côté bi ay garabu tàndarma fa nekk ak ay kër gaa yi mënuñu faa jaar benn place lañ mënoon a jaar xeex ak jullit yi te foofu jullit ñi gas nañ ko mooy kondir boobu tudd xandak keroog bi gaa yi di gas pax ba am na fa benn saxaaba bu siiw bu tudd ibnu rawaxa ndeysaan ma ngay woy ay woy ndax gaa yi sawar ndax gaa yi fàtte xeex bi jublu ci gas kondiir bi ma nga leen di soññ naan allahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilanna sakinata alayna wa thabbit aqdamana in laqayna والمشركون قد بغوا علي قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وي موي اللهم يو يالا لولا أنت بدون يو ما اهتدينا ñun de duñu jub yow yàlla day bu doon du yow ñun duñu jub kon ci sag mbaax yow yàlla goo namm nun nu baax moo tax ñu baax tey waaye yàlla boo nu baaxalul woon du nu baax ndax ñii di xeex ak ñun tey danoo baaxut allahumma lawla anta mahtadayna yàlla bu doon du yow de ñun duñu jub wala saddaqna wala sallayna yow yàlla bu doon du yow duñu saraxe duñu julli kon tey bu nu mënee jël sunu alal dara di ci coppati waxtu jot ñu bàyyi lépp lu mu doon def di julli yow yàlla yowa kon yàlla fa anzilanna sakinata alayna yow yàlla yàlla nga wàcc ak dal sunu kaw lii nag waajaa ngi koy woy saxaaba yi aw mbir mi xumb pikk yi dal peel yi gas ci ay waxtu yu néew daal gaay daal di gas kanaal bi fa anzilanna sakinata alayna yow yàlla yàlla nga wàcce sunu kaw ak dal wa sabbit aqdaam yow yàlla yàlla nga dëgëral sunuy tànk yàlla bu ñu tarxiis yàlla bu ñu daw yàlla nga samp nuñu sunuy tànk ni nga sampe montagne yi keroog in laa xëy naa bis bu ñuy dajeeg ñii yow yàlla yàlla nga dëgëral sunuy tànk yàlla boo ñu def ay buqat yoo xamante ne dañuy seen yéeféer yi daw yow yàlla yàlla nga samp sunuy tànk bis bu ñuy dajeeg ñoom ndax wal mushrikuuna de qad bagaw alayna bokkaalekat yi de bew nañ sunu kaw ndax seen xalaat du lenn lu dul tey dajaloo nekk ay mbooloo mbooloo ne dañuy far lislaam ci kaw suuf yow yàlla in araadu fitnatan abayna yow yàlla ñoom bu dee fitna lan bëgg te mooy tasaare kéeféer ci kaw suuf tasaare bokkaale tasaare bidaa yow yàlla ñun taxaw nan pour lànk lool du fi mën a amee in araadu al fitnata abayna ñoom bu nu nammee tas fitna fitna li muy tekki mooy mushrik shirk bokkaale ñàkk jaamu yàlla bu fekkee moom lañu bëgg a tasaare ci kaw suuf yàqute moom lañ bëgg a taxaw ci kaw suuf nax nu abayna ñun ñu lànk daal di bañ ndeysaan keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam kontaan na trop ba mu séenee gaa yi ci ginnaawam yonent bi bég mbooloo mi taxaw ci ginnaawam ñu daal di canaliser mbir mi yéeféer yi ñëw nañ jóge ca wàlla Makka dajaloo ñëw ànd ak seeni mbooloo waaye xam ngeen ne Medine niñ ko waxoon sànq benn côté bi dafa am ay montagne xeer keroog gaa yi ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam tasaana na leen ñaari groupe ñee di ñuy bari bari bari bari yonent bi moom dafa tuuti moom salaasa alaaf ñetti junni kese la yonent bi xaaj leen muhaajirun ak ansaar daa di jël drapeau waa muhaajirun jox ko zeyd ibnul xaaris bu jël drapeau waa ansaar daa di koy jox saad ibnu ubaada allahu akbar ñetti junni lañ sang bi sallallahu alayhi wa sallam xaaj leen ñaari xaaj naanam waa muhaajirun ñu ne ñu ngi nii mu naana zeyd ibnu xaarisa mu ne maa ngi nii mu ne ko yoral drapeau waa muhaajirin ana waa ansaar ñu ne ko ñoo ngi nii yonent bi sa ginnaaw mu ne ana saad ibnu ubaada mu ne maa ngi nii mu ne ko jëlal drapeau bi yéen de yéen la yàlla am tey ci kaw suuf yéenay aar diina ji dana leen yàlla jàppale bu dee waa Quraysh ànd nañ ak seen mbooloo daal di wàcc ca beneen wàll ba ci barab bu tudd asiyal bu fekkee Ghatfaan ñoom wàcc nañ ci beneen wàll ba ci wetu Uhud yeneen bokkaalekat yi daal di ñoom jublu ca place bi nga xam ne moom la ñu gas kondiir ba te mooy xandak biñ ñëwee ñaari mbooloo yi jàkkaarloo comme gars yi mënuñu traversé fas yi mënuñu tëb kondiir bi ñu taxaw wàllu wala di fettante ak jullit yi ñuy sànnante ay flèche waaye mbokk yi ci sànnante flèche yooyu la benn combat corps à corps face à face daal di am diggante benn yéeféer bu ñuy wax amr ibnu abdi wadd wala wudd ak saxaaba bu màgg ñeenteelu xalifa yonent bi ci kaw suuf muy ali ibnu abi talib radiallahu anhu wa ardaahu ci combat boobu mbokk yi la ñuy taxaw incha allah ba dimanche ñu dig leen di indil li des asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu